yêu anh này ai yêu ay ci jërëjëf euh, ablay euh, jaajëf euh, Maysa jërë ngeen jëf ay dara ñu ngi contane ci bu baaxa baax auditeur yi nga xamni ñu ngi bàyyi xel RFM la radio leader jërë ngeen jëf ci bàyyi xel gi ngeen bàyyi xel seen journal des faits divers khalas and ci ak Mamadou ndoy ban ak Mamadou Mohamed ndjay ban ma ngi lay ziar. ma ngi lay ziar ma ngi lay ziar bu baax. l'homme de Pire Gouray waaw le Pire waa wala le Pirien. le Pire waa. Ah, oui l'enfant chérie de Pire Gouray. maa ngi nuyu waa Pire yëpp. le Piriste la ñay wax di len ziar. le puriste la jaay ña ca marché ba ña ca garage. le puriste. ña ci biir kër yi ndékki. ew waa piir maa ngi leen di siyaar. dëgg la wér. de. waaw waay. yàlla na seen jàmm yàgg. ayca ñu ngi lay kontaane bu baax. waaw jàmm ji waa Pire yàlla nañu ci ëppale. amiin yaa waaw mu law ci réew mi. amiin raw ci àdduna bi yëpp. amiin yaa am jàmm ko bëgg jàmm yàlla na nga jàmm ko bëggul jàmm yàlla nangam jàmm. amiin Ndiaye. ñaan looloo looloo la ki rey de attan ma ñaan Ndiaye maa ngi lay siyaar bu baax. waaw maa ngi lay delloo siyaar bu baax Ababacar. mbaa lépp a ngi dox ah, waaw ñoo ngi sant rek. loolu baax na euh, ñu nuyu waa réew mi yëpp fu ñu mën di nekk nag. Mm. nuyu inspecteur Ndoye Bane mhm. euh, di ñaan jàmm ji muy ñaan ñu it yàlla nañu ci yàlla nañu ci gis suñ bopp. amiin ah, amiin bu baax waaye. amiin yaa rabbi jaajëfati noonu baax na ñu bàyyi la Ndiaye nga dem ci partenaires yi. ayca eh, comptoir commercial de plomberie du Sénégal. Mhm. partenaire ci xalaas. CCPS nekk rue Valmy angle Ngalandou Diouf CCPS nekk rue Floris angle Grasland CCPS nekk rue Tolbiac angle Faidherbe

ñuy champion ci wàllu matériel irrigation fi ci réewum Sénégal di ci liggéey lu am solo yoré ci matériel yu bax té garantie ànd ak qualité spécialiste sanitaire ci Sénégal ñepp nénañu mom la ndax matériel dernière génération yi mu indi mais également dala koy jaay ba paré garantie lako ko di sanitaire di tuyauterie di plomberie lépp lo ci soxla ci ay matériel yu bax andal ak partenaire xalas bi di CCPS di comptoir commercial de plomberie du du Sénégal. Mmh. amna solo donc euh, ban fiñ ñu xalas gi njëkk lu mu fala xalaas ki njëkk. wala dafa am express. express Ndiaye da ngaa yor express. da ah? ngaa yor express Ndiaye. déedéet Ndiaye yow Ndiaye indi xalaas de. Ndiaye Ndiaye daa taal rek ne am naa xalaas indi. Ndiaye de taal moom gën nga ko moom. Ndiaye Ndiaye Ndiaye. wala mbaa bàyyi waaye ngay dem di <laughs> jëli xalaas express yi di ñëw. waa ci dugg sa kër rek loolu daa war a jeex. daa yomb de dem na ci mbedd mi. non non kii la confinement bee tax. dëgg mën a génn dem fenn <laughs> xalaas yi may jël man à partir de laa ko doon jël. ah baax na yàlla baax na euh, vingt heures fekk jaay paasuley mi ci dagg ci nga dagg jaay hmm. yàlla na la ci yàlla fay non kii kaasam nee na dangaa sàcc kaas non non fam doon jaay sàcc ma ko nee na dama ko nee na kaas maa ci wax ba kaas bi kaas bi dem na ne <laughs> na nee na yaay sis numéro un ndeke du man rek maa sonn de hmm. ndeke waa kër gi yëpp sonn moo tax ñu sacrifié wu ba jël kaas gi yóbbu ko sama kaasu ndékkaay daal riina <laughs> kaas bi de bi nga koy jàmbat sa léegi paasuley mii eh. mooy ñooñu nga xam ni femmes yooyu nga xam ni waa da leen di dóor ci naan da leen di jox marché ak ñoom seen yaa ngi koy fàttaliku. bu baax a baax waaw da cee dajeeg nante nag. Hmm? Ah. waaw dafa dajeeg nante eh, déglu ko moom nante bi. Safa Fall dafa contacter sama benn système. xam nga wax ko turam wax ko santam wax ko lépp wax ko fi ñu doon dajee seen parlement parti socialiste yi seen séminaire yeeg yëpp. xam nga femme bi ni kii kon kii xam na ma mais. femme bi moom fàtte na kan mooy Moustapha Fall daal Moustapha Fall explique ko marché bi ni ko dañoo gagné benn marché hôtel Pullman parce que man dama fi demoon États-Unis def formation xam nga restauration liggéey États-Unis léegi waa hôtel Pullman dañ ma soxla ma ñibbisi si léegi nag sama xel demoon si yow ni war nañ mën a liggéey man ak yow femme bi ne ko ah man de damaa nekk si liggéey jàmbur te mënuma koo bàyyi di def leneen mais am na sama benn frère boo xam ne su ma ko waxee euh, di ngeen mën a liggéey yéen ñaar parce que moom dina sawar si loolu daal mu jox ko sama numéro xool numéro waa jox ma ko woo ma téléphone expliquer ma cas bi ma ne ko d' accord maa ngi koy déglu waa contacté ma bi ma contacté ni ma sa benn système moo ma jox sa numéro waaw man la diw Moustapha Fall directeur Talti hôtel Pullman dañoo soxla woon ay épices xam nga te man xam nga comme marché bi sama loxo lay jaar dama bëgg léegi eh, di lekk ci xaalis bi comme ça muy jaar ci yow di ñëw bu ñëwee ñu séddoo suñu kii dinaa la jox rendez-vous nga ñëw hôtel Pullman comme ça nga gisee ak secrétaire bi nga indi sa registre de commerce huit heures mu woo ma téléphone comme prévenu comme prévu mënu ma monsieur Ndiaye bon xam naa réunion bi dañ koy mujj dañ koy mujjee foomu mais dañoo soxla ay échantillon cinq échantillon léegi ki la koy jaay dama lay jox numéro mi ngi tudd Paasulay boo ko woowee nga ne ko soxna Xadi Ndiaye moo ñu boole sama bàjja bi ma joxee numéro paasu lay woowu ma paasu lay directement dama xaar xaar ay 30 minutes après la gaaw mu woo ma Moustapha Fall ni ma est ce que woo nga paasu lay man ko non woo woo naa ko mais téléphone am day sonné rek jotuma ko. composé numéro paasu lay woo ko ni ko euh, salut paasu lay naka mu yaa ngi si jàmm ma ne ko soxna Xadi Njaay moo ñu boole woon mun ma ndeysaan soxna Xadi Njaay dafa feebar dafa AVC dañ ko yóbbu sax États-Unis doomam yi sax bëgg naa dem Touba seeti leen fan yëpp maa ngi leen doon woo. baa mi ngi tane rek ma ne ko waaw mi ngi tane bu baax parce que déggante nañ jëm moom moo jox sa numéro sax mu ne ma waaw waaw ne ah yow de comme soxna Xadi Njaay moo ñu boole yow xam naa ne affaire yi du cher dañ la koy defal comme ni ñu daan defal soxna Xadi Njaay ma ne ko d'accord da ngay dugal moitié bi trois cent quatre-vingt-dix mille boo ko dugalee comme sax mu yónnee la affaire bi bu ma la ko yónnee bu ñëwee ba dakaar ba nga jot ko parce que man maa ngi Fatick ba nga jaay sa produit yi nga yónnee ma sama xaalis ma ne ko d'accord maa ngi lay rappeler ma woo monsieur Fall mun ma jot nga paas lay ma ne ko waa jot naa wax ma ma léegi yónnee xaalis bi nga jël bi nga indi ko hôtel ma ne ko ne ko du xaalis di que xaw ma paasu la yow xaw ma la yow woo nga nga ne ñu yaay di mu ni sii maay di xanaa amoo confiance ma ne ko non du question de confiance ma ne ko yow dèjà jox nga bi comme paasu lay comme yow yow yaa gën a marché bi léegi yow ma xaalis ma jox paasu man ko léegi qu'est-ce qu'on va faire léegi da ngay joxe moitié ma joxe moitié ñu yónnee ko paase mënu ma léegi ko yónnee paase la yow ko man ko déedéet yow da nga ne bi ma yónnee ko maa ngi boo yónnee sa moitié ma ni ma yónnee ko man maa ngi yónnee sama moitié paase lay man ma woo sama benn grand bu nekk expresso ma jox ko numéro waa ji expliqué ko lépp A ba Z mënu ma may ma 10 minutes je te rappelle ma ko d' accord ma woo sama benn grand bu nekk Sonatel expliqué ko moom tamit lépp A ba Z jox ko numéro waa ji mënu ma ok may ma tuuti après dinaa la revenir. sama grand bi nekk Expresso woo ma ni ma kii puce bi si numéro Ramatoulaye Fall lañ ko enregistré. mi ngi cité Asegna Wakam. ni ma kii dóorkat la ma ko ok. léegi maa ngi xaar sama grand bi nekk Sonatel après ma waa ji man yónnee naa sama moitié man quoi ah, d'accord man maa ngi dem yónnee moitié bi nii léegi xaalis laay retiré nii maa ngi koy yónnee man ma d'accord pour pour mën a am temps pour découvrir kan la sama grand bi rek Sonatel ni ma kii passeport la ñu enregistré numéro bi te ñu ngi ko enregistré ville euh, rue Assane 2 ma ne ko d'accord bi ñu wootee naka te Moustapha Fall moom mooy paasu lay paasu lay existé wul sa Fall boobu moom mooy paasu lay parce que boo ko wooyee day tëdd si néegam wuyu la comme Moustapha Fall nga woo ko comme paasu lay mu daw ci douche bi foo xam ne day am écho mu wuyu la fa ñun ñu jàpp ko bi ma ko jàppee nag ma woo ko ma ne ko gis nga sam waa man du ma nit koo xam ne da nga ngay ñëw jaar ci kawam jàll boo ma woowatee di ma kii dé mu filtre sama numéro man depuis boobu après déggaatuma leen parce que waa bu ñu ko jàppee man dinaa fa dem dinaa fa dem tam billaay wallaay taalaay bu ñu jàkkaarloo dina ko coûter cher xanaa policiers yi bañ ma jege ko mais su ma ko jegee moom billaay wallaay dinaa naa dal ci pour wax nit ñi nañuy teey nañuy teey ci dëkk bi arnaqueur yi dañoo bëri bul dégg marché dégg xaalis rek nga yaakaar ni instant yi dal nga ci. yi dañ lay gëstu ba xam la xam fi ngay liggéey xam sa tur xam sa sant xam say démarche jaar ci sa maayin dox ci. xalaas. Ndiaye dama bëgg ay nit yu fende nii nit yu mel nii. laa bëgg yeewu. ñor di ñor. Mm. di ñaaw njort. di bàyyi xel te du lu ku ñëw ku la woore ni la nii nga gëm ko ci sa portable ak téléphone fixe koo dajal ci mbedd meeg ku la fekk sa bureau ngay jàpp ni kii lim lay wax lépp du dëgg ba keroog ngay gis leneen. beneen bi ci topp mooy sax bu ñëpp doon doxalee nii. Mhm. naxa yi dina wàññeeku xam nga ku ñu nax moom nax nañ. Mhm. waaye nag bu fekkente ne da nga am li ngay wax fendi gu toll ne. Mhm. dem fa nga wara war expliquer ko. Mhm. xam nga fi mëno wax wax ba lañ la jëlal ñëwaat. Mhm. waye dina tax ba kenn du jëlalaat keneen leneen. Mhm. donc yi ni également lu ci bax la. kon Pape Souleye daanu na fi Pape Souleye daanu njaay ba élément bi ci top ni ndaw si yaa ko dégg sank bi ma koy monté mo la man ma ëpp problème ci Sénégal bi ma ko laajee ban problème la Aba dani ma mom doomu jëkëram moko top ci kër gi nopp ko diko harceler. moom ñaareel la sëy si indaale benn doom da doon sëy mu tas mu ñëw indaale benn doom nekk ci kaw aawa bi nekk ci suuf moom ñaareel bi rek ñoo dëkk ci suuf ak xale bu góor bi doomu jëkkër ci mais sëy na fa trois ans mais nee na un an et demi mujj yi amul jàmm amul salaam fu mu génn doomu jëkkër ji da koy harcelé di ko envoyé message di ko envoyé audio mu koo tontu mais nee na da ko bëgg a wax jëkkër ji mais fii Sénégal su ko waxee jëkkër ji xamul affaire bi la lay jur ndax doomu doom jo xale bu góor bi aaw bi juru ko ñaareel bi jurul ko doomu jiit la jëkkër ji la bu nekk ci biir kër gi ñoom ñaar waaw maanaam jëkkër ji koo am avant mariage avant muy am ah doomam la boo xam ni da koo am hors mariage avant mariage voilà voilà mu nekk ci biir kër gi mm-hmm, mm-hmm. léegi nag doom jooju nag moo nekk ci kër gi ci kaw dëkk ñaareel ba ca kaw di ko ruube té néna na ma fii Sénégal suma ko waxé ñu ne Sénégal so su jigen su ko dara dalé su waxé ñu ko waaw ya ñàkk fayda so nélo ni nangam ak nangam mën nañu dem ban yaakaar sax mom da koy xaw a boy bi sax mën na wéddi boy bi mën na wéddi indi leen tek ko ba pare njaay na mag ñi bayyi xalé ñi tak njaay ah, njaay nga tak sa soxna indi ko ci si biir kër gi do ko takal sa bop de ñeneen nga koy takal de mag day tak mag de xalé ah xalé tak xalé ah tay de and na ak yow ah ah baax na ah ah baax ah waaw indi Sénégal bii ñu nekk kenn kenn kenn ëpp mu problème man dama nekk sama kër di sëy ak sama jëkkër may ñaareelam mu am aaw ma fekk ko fi aaw bi dëkk ci suuf man mu dëkk ci kaw man nag njëkkoon naa sëy yàlla weddi ba ma am ci benn doom yàlla dogal nag sama jëkkër bëgg ma lool indi ma ci biir këram may sëy à trois ans de mariage yooyu mu lay def kañ la ko commencé commencé ko commencé na ko ça ay ay un an et quelque ay un an et demi am jàmm xaw ma fu ma koy waxee parce que man def naa si kër gi trois ans de mariage amaguma fi doom déedéet moom nag wax dëgg yàlla man bi may doog a ñëw si kër gi xale bu baax laa ko jàppee jàppee ko comme sama doom bien vrai que mënuma ko jur mais dafa sympa woon tellement gentil xam nga in musuma indi benn problème day toog ak man ñuy seetaan télé amul benn problème mosuma woon dara problème mais nag ma commencé gis ni dootul génnatul dematul fenn si kër gi lay toog du bouger du waxtaan du def dara. gauche mu xool ma heure bu ma rombee daf may topp du regard di ma xool xool xool ba sa yaram bi day daw. bu mu demee nag ba sonn mu commencé nag di ma bind ay SMS di ma message. di ma message man au début dama newoon kii de yàlla day seetlu wala papa ji da ko yónni wala dara sax mais daal bu mu demee ba am de taxaw wax ma ko dama tiit ma ne ko li ngay def ni bopp dafa jour ba mu ko commencé nag mooy bi papa ji voyagé mhm. ba mu bàyyee ba papa ji voyage ci la commencé nag am jëkkër tukki gàtt rek lay def mais nag saani trop dem na ba léegi daf muy envoyé ay audio ma yónnee ay film porno amatuma jàmm si biir kër gi damay tiita tiit ndax yow xam nga sëyu senegal kenn du la ko jàngal ndoy baar uh-huh. sëyu Sénégal dafa métti à chaque fois damay ne dama koy wax papa mais xaw ma su ma ko ko waxee nan la koy jëlee xaw ma papaam bu daree ci kawam nan la affaire bu fan lay mujj njëkk yeeg goro yeeg yow xam nga bàjjen yeeg yooyu yëpp ay mel ni complot la wala pour monter doo xam yaayam nekk fi man maa fi nekk moom koo koy wax boo ko waxee day ñu xam ne complot la day mel ni damaa ñëw ci kër gi di ko xatal ndax doomu jiitle la yaayam nekk fi bàjjen yi mën nañ dal sa kaw ñu lay toogee di la waxtaanee yëf yi tourné ba dal sa kaw te fekk yow yi yàlla xam na ni yëgoo dina Sénégal jigéen daf fee néew doole loo def ñu sikk la loo def ñu sikk la man xale bi boo ko waxee ñu ne yow yaa doo noonu moo tax sañ la ko wax te yow man moom mi nga xam ne papaam bi ko jur sax yàgguma ba nit di ma yem mais xale bi dama xamul nan laa koy def gis nga su ma tëddee nii dafay ma sama téléphone ay audio la di ma def ay audio di ma envoyé ay film yu bon yooyu man dama jaaxle jaaxle te mënuma ko ŋaar fenn fenn mais est yooyu mu lay yónnee yaa ngi ko yaa ngi ko audio yooyu noonu. damay dajale samay preuve nga dimbale ma ma xool nu koy réglé parce waaw léegi maa ngi dajale samay preuve audio yu may yónnee supprimer ko ma dama naa supprimer di tiit léegi supprimer wu ma la koy gis musul ma SMS wala mu envoyé ma audio mhm. dama tontu ko mhm. musul am dama koy fii ne pat jàpp sama ñaambur jël la sama caractère mais xale bi dafa ànd ànd ak fit daal mhm. fit daal la am sonal ma si biir kër gi naan ma gënu sam papa gënu laa bëgg ko man man maa la gën a bëgg ko sam papa dama la bëgg depuis boobu ba fi ñëwee ba tey aw ma jàpp xale bi man la génnatul sax kër gi te ni nga gis ni am na un jour man daal ma sangu ba toog sama néeg di digu sama digu mu ñëw rek tijji man xaw ma da koo calculer la def ba xam ne instant bi wax ñëw rek tijji te fëggul man li may dund man rek boo bu jur xaw ma sax lu may ma jaaxle xaw ma nu may def ndax bëgg naa sama sëy bëgg naa sama jëkkër xalaatuma yàlla ka sama sëy ndax dama bëgg sama jëkkër mais xaw ma daal nu may def doy dem na ba su ma tëddee sax du ma nelaw damay ragal ndax du ñëw jaay ma doole violé wala mu ñëw drogué ma violé ma sama xel moo dara tu si dara loolu daal laay ragal daan na attaaya di ma jox ma ne la dañ daan dund normal mais depuis que mu yi bëggatuma dara am naanatuma attaaya duma ko sax yónnee ci dama ko daan yónni et tout mais ragal naa sax mu def dara si attaaya jox ma. on ne sait jamais man daal mu ngi noonu yónni sax defatuma ko ma ko nag dañ koo wax moom su biir nit ñi su waxee ak man dinaa ko tontu xam fu may yem mais kantaas bii moom ci kaw du ma sax wax ak moom dara dara dara ci kaw yaakaar na fa dëkk. man la ak moom ak sama doom bi. Hmm. ak sama jëkkër su fi nekk. sama jëkkër su fi aaye. Hmm. waaw. moom xanaa amul ay gel ak yooyu du fa indi. du fi indi dara. ba mu daan ñëw daan na fi ñëw sax ak ay xarit indeeti fi sa xarit. fii lay toog ci salle bi seetaan télé seetaan marché seetaan télé yooyu daal lay dem. kese si salle bi lay toog bu ma duggee mu may gis bu ma génnee mu may gis. comportement bi mu adapté ñii di toog si salle bi bougé wu fenn gan bu ñëw taxamu mun nga sax yaakaar ne kii mooy sama jëkkër. ban li mu daanele li mu mujjee wax nee na ku ñëw ci kaw fekk fa waaja na mu too na muy toogee da ngay yaakaar ne mooy jëkkëru ndaw si ndax comportement am te nee na comme li ko Njaay waxee sànq xam na jikko yi sénégalais yi ba njëkk na leen xam nga Sénégal soo daal dara dalee jigéen dañ naan moo ñàkk fayda moo ko def lu mu doon xool ba nangam nangam su ko porté plainte wala wax ko papa ji coow si jógee xam nga coalition. Mm-hmm. la ñuy def ko coalition ànd xeex xeex ko ba tas sëyam. maanaam femme bi elle est coincée. coincée na de. mais nag benn moment xam nga tax mu coincé. wa ben moy day wujje. lu ko sikkel day yom ben ñaareel ba moy xalé ba yaayam nekk fa. tay bu ko xé papa ji papa ji jaara fi génné xalé boy bi sanko bala lén lu ci am ci mom lay juggé tay buñ koy nettali dañ ko ciy tudd benen bi moy situation bi mënu ko continuer di wéyal parce que dañuy faral di wax né jigen du rëbb soy mais je pense c'est le contraire góor moo du rëbb sooy bu mhm. coincé tamit mm-hmm. légui nak mhm. ñun ñi mhm. ñii ñu ko xelal parce que ñun ñepp ay góor lañu té mbëggeelu góor la ñuy man mën naa ko xelal dédét bul xeeb sama xel mën naa ko xelal ci ñun mënu ko xelal parce que li ma leer moy suñu biir xol yi tay boko ko ubbi woon ñun condamné wuñu boy bi parce que li abaat wax mbëggeel fune lay juddoo mm. c'est-à-dire les sentiments c'est des choses yo xam non mais mais ne mais ne mais ne sa sa alalu bàyyi du sa alal sa alalu bàyyi moom condamné ma boy bi condamné ma booy bi parce que ku ci nekk li nekk sa xol buy ñëw du la avertir man dama ko condamné booy man femme bi laa condamné lu akay ah, femme bi war am fermeté gu toll ni ah. yemale booy bi ba boy bi bu dee da ko bëgg doot ko ko mën a wax ci biir xolam la koy yemale benn mhm. ñaar elle a ses preuves ci message na ko won jëkkër ji parce que suba kenn xamul lan lay def ñett dafa jox boy bi importance bu demee ba naan ñii ñëw dañuy yaakaar ni boy bi moy sama jëkkër rek yenn comportement yeeg yoy dafa jox boy bi importance na na multiplier boy bi par zéro wan ko fermeté gu toll ni ba pare avertir papay boy bi wan ko message parce que elle a des preuves mhm. d'accord gis nga Abba dañoo nekk ci dëkk bo xamni fi nañ ko xanté de dee dañ ko xanté du dund jigéen dafay néew doolé fi Sénégal xamuñu ko fayu ko xamu xamu ko fayu xamuñu xam xamuñu ko tooñ ko ko ko fayu lañ xam mm-hmm. fii dangay def lu ñuy weng ba pare am ay supporter tey ji ndaw sii bis bu affaire bi jóg taw yu jógee billaahi di nga dégg coow su yóox fu nga wa njëkke yaa bàjjen ya ñooy def coalition xeex ko naan xale bi li fi yaayam nekkul moo tax ngeen koy def yi du dëgg nangam ak nangam te bis bi ko porté plainte fii nii xam nga xale bi mën na cee tëdd kaso lii nii. Ah, waaw mais waaw euh, baax na il faut mu def choix. ah il faut mu def choix moom te bariwul choix. parce que mënut ànd ak booy bi ndax jabaru papaam la. Mhm. moral mayewul nga xam baay ba pare xam doom. Mhm. nangu ko. Mhm. Euh, mënul ko ne dund situation bi il faut mu dénoncer booy bi. après nag advienne que lépp lu ci tukkee mu assume ko. lenn rek moo ko mën a dimbali. fekk mu am jëkkër ju mat sëkk moo ko ci mën a génne. jëkkër ju mat yow fam bi de yor nga photo da tax booy bi war ko waaw ah, yor naa photo am na nu euh, booy bi femme bi. parce que lii jaaxal na gis nga li muy bay bayal nii li muy bay bayal nii. Hmm. wallahi booy bi dina mës a jéem a essayer leneen dina jéem a jàll ci étape supérieure te boobaa lay gën a garaaw. mais beneen problème sax femme bi dana toll ci maanaam moment de faiblesse yoo xam ne dafay soxla ko ko épauler bu boobaa bu gisee booy bi. Euh, complicité bi day gën a dox si. Eh, booy bi mooy dem terrain sonn ñëw ne ko maase ma. waaye li ngay yow fi ñuy jëm moog booy bi xoolal booy bi dina jéem a créer ay pexe jéema teg ay tànk ba jéema am femme bi. non xam nga femme bi te bu boobaa femme bi du koy weddi. non non femme bi su dem. maa de naroon a nangu. booy bi dana espoir ba sonn. voilà femme su <laughs> su naroon a nangu du eski fii. non femme bi su naroon a nangu du eski fii te gis naa ni du du du du kii. maanaam gis nga tey boo interrogeant booy mu la moo ma topp. mu nekk message yi nga yor bi nee na ma musu koo tontu ojo musu ko tontu message ay message am man ko du tax bloqué woo ko mu ne ma damaa bëgg ay preuve ndax dama daan effacé jékki-jékki ma ni effacé bi erreur la man ko demal uti huissier mu constaté message yi après nga dem police def déclaration. kon dañ koy jël si. déedéet day déclaration bokkut ak plainte. déclaration que ni sama jëkkëru doom sama doo sama doo sama doomu jëkkër mi ngi may defa mi ngi may harcelé ci biir kër gi. te fii Sénégal su maanaam soo soo li naan xamuñu ko fayu ku ku tooy ku tooñ ko fayu lañ xam daan ni leen garder leen ma déclaration bi jël kayitu yu yi teg parce que bës a ngi ñëw. police loolu day am. da ngay loolu loolu mën nga loolu mën nga ko def. mën nga dem police def déclaration boobu yëgal waa police que nit pour lii ëllëg su lii amee. na ngeen xam na ngeen ñëw seet loolu ban day sori du ko wax jëkkër ji mu jeex. voilà loolu. yow tax ma koy ñaanal yàlla na fekk mu am jëkkër ju mel ni ndooy baan. leexee lan la ba pare njaay suñu papa yi nañu xool nit ñi takk ndax boo amee doom joo xam ne mat na góor mat sëkk nga takk diriyànke boo xam tabarkàlla yàllaay bind xool lu ko neex mu bindee xel nit ki mu nekk ci moom moomu ko hmm? femme bi di ko romb ak ngay aye fee di aye waay eh, nan dem allo présidence laa <laughs> ilaaha illallaah